Eh, ñu ñëw ci waxtaan patriote à vie yan ngeen bokk Pastef ah patriote mënul ñàkk doon patriote même jarul à vie quoi quand on est patriote on l'est à ngeen def patriote à vie seen mouvement bi lan moo ko sooke euh, bon macha allah danga may courant def pensée la ci biir Pastef wala mm-hmm, ah, mm-hmm. wala li Pastef di doxee da leen doy da leen doyul dañoo doyul <laughs> ah, macha allah danga may mayaat moo am ñoo xamante ni dama leen di nuyu Mm. da nga may jégal si loolu rek ma nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax ma ñëw fi eh, muy man man ma nekk membre mouvement patriote à vie nekk ki nga xamante ni mooy euh, caissier général bi di nuyu suñu président commandant Saliou di nuyu euh, son vice président Doudou Mangara ak secrétaire général bi di Ahmad Abdoulaye Ndiaye. Mm-hmm. di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk si mouvement patriote à vie ak ki nga xam moom laa àndal mu yor wàllu communication muy g mm-hmm. ñu nuyu ko bu baax siyaar ko gannaaw loolu ma nuyu waa Guédiawaye nuyu suñu waa kër nuyu sama yaay. Euh, nuyu ñëpp bon ni nga ko waxee nag bon li tax ñun ñu créer mouvement patriote à vie ba pare nekk biir Pastef nekk ay patriote mhm. xam nga président Ousmane Sonko moom moo nekk suñu président parti. Mhm. gannaaw loolu euh, xëy na moom euh, am na ñoo xamante ni mën na leen a convaincre pour ñoom ñu ñëw rejoindre Pastef mhm. mais am na ñoo xamante ni ñun ñi ñuy àndal. ak ñu ñuy nekkal ak ñu ñuy fréquenté ak ñun ñun ñooy dem di xam ñooñu seen seen jàngoro ak si ak euh, li nga xamante ni daañ koy wax gouvernement bi. Mm-hmm. si kaw loolu ñun bu ñu tëralee benn mouvement tuddee ko patriote à vie ñun daañu mën a dox bu ñu gisee suñu nawle gis ni moom kat nekkul biir Pastef wala moom kat nekkul euh, suivre li nga xamante ni mooy lii gouvernement bi di teg ñu ñu fexe ba orienté ko jox ko discours boo xamante ni discours bu baax lay doon fexe ba orienté ko parce que man sama nawle su ma ànd moom. nekkul Pastef man du ma neex mais dinaa def le tout pour convaincre ko mais boo ko bàyyi boo bu fekkee da ko bàyyi noonu en fait ñi la jiitu si parti bi xëy na ñoom amuñu moyen pour mën a ñëw si base bi si suuf pour mën a waxtaan ak ko pour convaincre ko. Mhm. ñun loolu moo tax ñu créé mouvement Pastef bi mais li tax ñu gën ko créé nag mooy bi élection yi passé élection présidentielle yi ñu fal président Diomaye euh, dafa amoon benn euh, benn groupe bu ñu ubbi woon ñu tuddee ko naataange réew mi. Mhm. léegi nag dañ ko yaataloon. def ko région par région. Mm-hmm. mais si biir loolu dañu gisoon ni dafa bëri dafa bëri woon euh, pëccëxoo. Mm-hmm. léegi ñun comme dañu bëgg loo xam ne dafa am qualité parce que ñun ay patriotes lañ. Mm-hmm. ñu ne ñun dañuy génn si li nga xamante ne mooy euh, nataange boobu nga xam jàpp nañ ni pëccëxoo bi bëri na woon ñu dem créer benn mouvement patriote à vie bu pare bu ñu ko créer ba pare nag ñu daal dem segg ay nit ñoo xamante ne jàpp nañ ni. li sëñ si Ahmad Tidiane si di wax ne yàlla suñu borom majorité maanaam minorité de qualité la gën a soxla si majorité boo xamante ni dañuy topp mumbaay meeg yooyu loolu moo tax ñu créé li nga xam mooy mouvement patriote à vie. Mm-hmm. mais loolu est-ce que du paradoxe bokk ci passé au moment où parti bi am na ay structure tey jii boo demee sëriñ daara yi am na fu leen tënkee mooy modap mm-hmm. nga ñëw ci jeunes yi ñu ne GPS mm-hmm. nga ñëw ci cadre yi ñu ne. modap mm, ah, mouvement des cadres léegi yan ngeen rocceeku ci loolu lépp bàyyi fa loolu lépp créer seen yëfu bopp est-ce que du nekk benn genre courant de pensée comme ni yeneen parti di doxee parce que ni ngeen doxe ni am na parti ko doon doxee mais parti Pastef bi mu ñëwee dafa indi beneen modèle ci wàllu politique mm. mooy ñu structuré ku ne ñu jox ko cëram na ko fi nga féetee diw moo la jiitee mais boo leen rocceekoo ci loolu lépp créer seen yëfu bopp est que du indi pëccaxoo mm. non xam naa fi ma waxee déggoo foofu xam boo xoolee ay Moncap ay Modap ay Jubes cest à ñoom dañu créer dara biñ créer dara ba mu ba mu am lu mu mën a jur si lañ doog ñëw dugal ko biir Pastef parti bi terewul loolu en fait. Mhm. mouvement boo xamante ni dafa débuté si suuf. di dajaloo ndànk-ndànk di créer dara ba am dara ñëw bëgg dugg si si ñëw seel ko si parti bi boo xoolee ñi nga fi tudd yëpp ñoom seen cas noonu la demee ñun nag si tànk yooyu lañu ne mais àgguñ si si ñoom àgguñ ñoom fi ñu toll. Mhm. ñu ngi si ñu ngi suñ premier pas ñu ngi doog a créer mouvement bi. bëgg nañ ko dugal ci Pastef mais agaguñ fa mais ci Pastef la la mais ñun ñi déjà ay patriote lañ man mii di wax ak yow militant Pastef la Golf Sud laay milité woo. Mhm. ñeneen ak ñeneen ñëpp si si ci patriote euh, Pastef lañ bokk mais comme ni ma la ko waxee c'est-à-dire dañu créer lu ndaw lu ndaw loolu ñu bëgg mu nekk lu mag bu nekkee lu mag nag ñu ñëw dugal ko ci biir Pastef mais ça n'a rien à ak. loo xamante ni parti moom lay doxale wala président Ousmane Sonko wala keneen ak keneen noonu lay doxale wala charte parti bi loolu la tënk ñu ñu ñëw bëgg a def leneen. <laughs> non non mais xamu courant yi des fois day dem ba comme li ngeen créé nii da nga ne bu demee ba nekk lu mag mais bu nekkee lu mag léegi da ngeen di bëgg a teg maanaam boo bu ngeen di bëgg a tekki dara ci biir parti bi est-ce que nekkul pour que ngeen am beneen ligne boo xam ne day wute ak ligne parti wala da ngeen bëgg gën am beaucoup plus de ci parti bi. waaw non xam nga. parce que booy créer dara. daa am lu koy tax a jug quoi doo créer dara parce que da nga bëgg a créer. non non mouvement patriotique bi créer wuñ ko rek parce que dañu bëgg a créer cest à comme ni ma la ko waxee sànq cest à ñun xam nga nit matul. ñun dafa am loo xamante ni jàpp nañ ni ñun en tant que en tant que ay xale en tant que ay ndaw jàpp nañ am na loo xamante ni ñun si suñu wàllu bopp ñoo ko war a liggéeyal Pastef ñoo ko war a liggéeyal parti bi. comme lan. lu si mel ni ñun am na ay initiative yoo xam ñun ñoo ngi koy tëral di ko def si mel ni. Euh, am na ay rencontre yoo xam dañ koy def dem si ay place wala ay grand place fekk fa ay nit saafonteeg ñoom waxtaan ak ñoom xam nga gouvernement bi li muy liggéey am na ñoo xamante ni dañuy wër di maanaam di di di di di yàq turu euh, deru gouvernement bi bu gouvernement bi defee lu baax ñu ñëw orienté ñi si leneen ni leen gouvernement bi li mu def baaxul ñun ñun xam nga ñun dinañ ko man en tant que man ak ñi nga xamante ni sama ay morom lañ daa ñu xëy benn dimanche ne nañ dem place sàngam bu ñu demee place sàngam ña benn ministre du ñëw di wax ak ñoom benn DG du ñëw di wax ak ñoom benn responsable parti parce que xëy na o euh, am na yeneen occupation yoo xamante ni du mën a sol dàllam dem wax ak ñoom mais ñun bu ñu solee suñu ay dàll sol suñu ay logo def si mouvement patriote à vie dem waxtaan ak ñoom ji mu leen a xam nga ñun euh, loolu lañ gis en fait. loolu ñoonu li nga xamante ni euh, dañuy dem après présidentielle yi man daa am benn bu ma def dafa mel na yow mi da nga kaa gis dañu waa Pastef yi bari da nangu ko nag boo leen ko wax du nga nangu mhm. mooy le travail à la base effectivement depuis ñu falu dafa des mhm. est-ce que nekkul ni yéen remarque boobu ma def moom ngeen def ba ni duñu jël rek mbir yi teg ko ci kaw mais dañuy wàcc ci suuf kon ne di wax ak askan wi comme ni nga ko doon defee dans l'opposition est-ce que nekkul ci loolu ngeen ne. effectivement si loolu lañ ne. Hmm. parce que xam nga ministre wala DG wala responsable koo xamante ni dafa am yenn ndombo tànk yi si parti bi. Hmm. moom mënul sol daal la moom kese wàcc dem si benn place wala wàcc dem si benn grand place di wax ak nit ñi boobaa day indi pëccëxoo nit ñëpp daje mu indi embouteillage ak leneen mais ñun bu ñu defee suñu ay tiset yu sol suñu ay daal dox fekk suñu ay morom toog ñun suñu morom yooyu toog ñun ñoo mën a wax ak ñoom bokk mais loolu est-ce que nekkul day signifier ni GPS deful liggéeyam non GPS mu ngi def liggéeyam ñu non parce que li ngeen wax ni jeunesse patriote yi bu doon ñi ngi koy def yéen soxlawul leen dul ko def mhm. kon bu bu vide amee rek mhm. am na ñu waroon def te defuñu est-ce que nekkul loolu ngeen gis yéen non man jàppee moo ko vide xam nga dans a vie àdduna yàlla bi ñu fi indee cest à kenn ku ne sa liggéey dafa am fu mu yem amul kenn koo xamante ni sa liggéey ndar képp na lépp mhm. koo mën a doon rek sa liggéey dafa am fu mu yem ñeneen ñi nag ñoom ñooy mottali liggéey boobu noonu comment nga en tant que JPS ñu ngi ñu ngi def seen liggéey ñu ngi def seen liggéey ni ñu ko waree ak ak li nga xamante ni ñoom noonu lañu bëgg a seen liggéey mais ñun itam jàpp nañ ni pour jàppale JPS ñun loolu ñuy def seen liggéey la woon mais xëy na ñoom ñu ngi si yeneen yoo xamante ni ñoo ngi koy def ñun ñu ñëw liggéeyal leen li bu boobaa day nekk benn combat rek bi national la mouvement bi euh, mën naa wax ni international parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi bitim réew ñu ngi ci mouvement bi. voilà. waaw man de euh, li ma gis ci sa mouvement bi euh, pour man baaxul mouvement bi parce que am nga problème sax pour expliquer yëf fii ngir mu dugg ci bopp nit ñi parce que soit dafa mel ni dafa da nga ñëw expliquer ñu ne ñu kuréelu ndaw ñi defuñu li leen tax a jóg. moo tax yéen ngeen jóg loolu moom ngay dégg ci wax ji nga xamante bi moom ngay wax maanaam dafa mel ni da nga wane ni ndaw ñi demuñu ci seen moroom di wax ak ñoom ajaat nga tamit ministre yi wane nga ni ministre yi léegi nekkatuñu ci suuf ñi ngi ci kaw loolu mooy li nga xam ne mooy sa mouvement bi yow li nga xam ne moom lay liggéey maanaam day ŋàññ li parti bi di doxee maanaam danga nga koy mouvement bi da koy yi léegi loolu laa bëgg nga indi ñu pour leeral parce que li nga wax noonu point yi nga xam ne moom nga souligner euh, maanaam critiquer nga ndaw ñi critiquer nga ñu falu <laughs> léegi looy tontu. non ça na xam naa yow yaa war tuddee critique mais du critique ça dama ni la. Ah, moom mouvement bi loolu lay firi quoi. yow c'est que li nga wax ni mooy seen liggéey. Mhm. loolu lay firi. daf firi ni maanaam ñii amatuñu jot jotu askan wi loolu nga ñu wax li nga ñu wax loolu lay firi. <laughs> parce que ah. mënatuñoo ñëw ci askan wi mënatoo gis benn kii bu ñëw ci askan wi di wax ak ñoom léegi yéen ngeen bëgg a wax ne vide dafa am ngeen bëgg a combler boobu wala du lool. bu dee kay mu non loolu mën nañ ci d'accord que ni que ni vide mën na am ñun ñu ñëw pour combler ko loolu mën na am. mais léegi nan nga mënee nekk yow Pastef vide am yow loolu war a nekk sa rôle nga nekk ci biir parti bi nga ne waaye man pour ma dem régler ji problème boobu damay tudd neneen nu bokkut ak Pastef. non non c' est pas ça. Ah, loolu nga ñu wax de. déedéet maam ñun dañu créer mouvement. léegi bi ñu créer mm. mouvement yow da ngaa ba génn parti bi fi mu toll te yëgoo ko. non non biir parce que. non génn nga <laughs> nekkatoo ci <laughs> yow da nga créer ba génne sa bopp ci biir parti bi. waaw mm-hmm. ah, ah, loolu la léegi ku génn parti bi nu mu ciy dugalee waat nit. parce que yow da ngay créer pour dugal ay nit ci sa mouvement. non non mais créer pour dugal nit ñi. voilà ci biir parti bi. voilà léegi damay dañuy créer pour dugal ay nit ci suñu mouvement. pour jël suñu mouvement dugal ko Pastef waa loolu <laughs> non xam nga fi mu toll ni tey. il mhm. suffit que tey nit ki léegi lu mu mën a nangoo loolu kaay ci man. Mhm. boo ñëwee ci man ma yóbbu la ci Pastef te nit ki mën a dem ci Pastef directement. voilà léegi lu tax nga bëgg a créer euh, intermédiaire entre yow ak parti bi maanaam balaa nit di dugg ci parti bi. Mhm. na ñëw jaar ci yow léegi yow nga yóbbu ko ci parti bi te parti bi am ñoo xam ni. ña nga nekk foofa ca bërëb ba géejaway mën a dem militer directement ci parti bi léegi yow nga bëgg a créer benn intermédiaire boo xam ne mooy nekk ci digg bi. sëñ bi li nga créé xamoo ko xam nga. nekkatoo ci parti bi. xam nga li nga wax sàng dafa am solo. mais mais yàgg nañ gis. Euh, koo xamante ni sëriñ la ba pare mu mu daal def. Euh, mu daal di am ku mu seexal maam si waxin damay ñëw si waxin. non attends ça ça. <laughs> waaw léegi yow di wax ku la seexal. waaw non non waxin la rek <laughs> gis nga comme ni ma ko waxee sànq gis nga àdduna. Euh, ni ma la ko waxee c'est-à-dire ñun. Mhm. am na koo xamante ni mënul dem dugg Pastef. loolu yow réalité Sénégal xam gis nga ni muy doxee léegi ndaw ji mënuñu ko jëm fexe. déedéet ndaw ñi ñu ngi dugg biir Pastef mais ñenn. maam ñenn si ñoom nga yow fi mu toll ñan xam ne mënuñoo jóg dem dugg ko. waaw léegi da nga leen koy xamaat rek mu jeex. non wan la. non pas ñëwal si man. ah loolu nga woote di. non non ñun suñu ñëwee dañ leen nga xamante ni mooy mooy li gouvernement bi def ak projet bi moo ñu tax a jug ñun ñëpp léegi nag léegi dugal Pastef directement non non non non ñun ñu dugal ko suñu mouvement encadré ko. seen mouvement boobu moo warta am. non mais quand même ça pourquoi suñ mouvement warul am. amee ah, boo créé mouvement bi keneen créé beneen mouvement keneen créé beneen mouvement mais parti bi anarchie lay doon. non bu dee parti dañ ko jël ñu ne parti bi bët yi ñii ñoo yor li ñii ñoo yor li ñii ñoo yor li ci biir ñu mu am ñeneen ñu ne dañoo bëgg a créer leneen loolu saa waay yéen wut maanaam yow da ngay nangu ni bokkoo ci biir parti bi. ñu nangu ni bokkoo ci léegi nag nga ne nag man damay créer mouvement boo xamante ni bi nag sama yoon mooy jubal ci Pastef ku dugg ci sa mouvement ñu xam ni ko ñu xam ni waa Pastef gi mais yow bokkutoo ci mouvement bi d'abord bokkutoo ci Pastef mais ça yow ya xam nga Walf Walfadjri nga nga lañ la xamee waaw mais yaa solution TV n'est-ce déet da ngay déglu xam nga li ngay wax noonu comparaison n'est <laughs> raison comparaison n'est raison ah, xam nga ah, li nga wax non li pour dugal leen ah. demul recruter ay nit pour dugal leen yaa ngi dégg comparé boo duggee ci man da gën a xalangu bul ma jël comme exemple ñëwal ci yow mii nga xam ne yaa nekk ne da ngaa nekk biir Pastef kere loo xamante ne bi mi ngi ci diggante entre kuy dugg Pastef waaye yow kan moo la def bunt yow ba nga bëgg a nekk bunt bi man moom ma jaaxal yow doo bunt doo saxaar doo tere doo kii yow da nga bëgg a wéeru ci Pastef ba noppi kere fa loo xamante ni bi warta exister mais man sax damay damay damay sof foofu parce que damay wax ni ah. bu fekkee yow yaa ngi ci biir parti bi li ma doon wax syndicat jàngalekat yu bari yii moom laa lay wax ah. man lu tax ci biir fi nga nekk noonu GPS la ñuy wax bokk nga ci ndax jeune nga mais lu tax defoo travail de base bi di wàcc ci terrain bi mais uniquement pour loolu ngeen bañ a créer mouvement. Euh, nga nekk ci biir GPS mais di liggéey comme lii ngeen di liggéey nii ak sa mouvement bi. non xam nga foofu ba léegi. Hmm, da ngay tënk. Euh, bu fekkee GPS la. Hmm. ñi ñi nga xamante ni ñoo ko jiite. ñoom dafa am li ma lay wax ba léegi dafa am liggéey boo xam ñoom ñoo ngi koy def mais ñun tamit gis nañ ni am na liggéey boo xamante ni xëy na ñun wax nañu mën a créer dara nekk si loolu di ko li di leen ko liggéeyal ñoom. mais loolu ëllëg est-ce que natt nga conséquences yi tey jii da nga ni da ngeen ni yéen euh, li ngeen di dox pour parti bi la li ngeen di def yëpp pour parti bi la euh, parti bi la ba pare massifié. mais tey jii bu bu comme par exemple nu doon day dañ koy gis ci parti yu bari soit dañ naan pro nangam wala produit diw wala nangam ak nangam yooyu yëpp yàgg nañ ko gis ci ci ci biir parti yi est-ce que xalaatu leen à la longue bu surtout nag bu dispatching rôle yi ñëwee yeneen ak yeneen ñii di frustré wu fii nii naan ñëw liggéey lii wala nangam est que bàyyi mouvement bi demoon ci GPS du leen éviter yooyu yëpp aussi. non ñun nag pour dire vrai ay magu jëmu lañ xalaat suñu xalaat teg ko nekk si di liggéey. te gis nañ ñëpp euh, seen bopp maam convaincre nañ seen bopp que ni li ñu ne euh, déjà sax parti bi bañu ko parti bi bañul. waxtaan nga ci ak kilifa yi. Mm-hmm. kilifa yi ñu ngi def ay démarches. mais yàgg nga Pastef kañ nga dugg ci. man moom moom moom li mu wax nii yow fan nga teg ni partie bi bañu ko. non non parti benn mouvement bu ñëw. mais fan nga que est ce non waxuñu mouvement mais mouvement du juddoo ci biir parti bi duggaat bëgg duggaat loolu moo yéen wut maanaa yow li nga wax ni mouvement bu jógee fële béti mii dem yor mouvement boo xam ne mu ngi tudd euh, dëxin gi am ñu ci ajare mu ne dëxin gi de dama leen di yóbbu Pastef yaa yaa ngi dégg kooku parti bañ bañu ko mais parti boo xamante ni bi dafa jógee ci biir Pastef parce que yow su tur bi rek turu gaaruwaale la patriote à patriote à vie. ñan laay gaal maanaam ci ñi nga nekk maanaam yow da nga wane ne yow ñooñu yaa leen gën a dëggu sax. yow ah, sa tur bi yow xool nga ko. Hmm? parce que boo nekkee ci biir patriote yi. nga bëgg faa créer ne man patriote à kon dafa mel ni kon ci biir ñooñu da nga wax ne am na ci ñoo xam ni. duñu vrai patriote duñu vrai patriote yaa leen gën a nekk patriote. maanaam yow da nga bëgg a créer lu gën a concret li nga jóge déedéet du loolu de. ah demeewul noonu de saa léegi léegi léegi waaw may ma benn rek ma jox la na tontu li waaw ay ca tontul saa ma jigéen après nga dem dinaa ko laaj en fait euh, euh, maanaam mbir boo si nekkee mhm. chaque jour da nga war a def ay yitte ak wone taxawaay buy wone ni mhm. yow mbir mi kenn gënu la koo bëgg waaw ñun loolu la rek loolu moo tax ñu tuddee suñu bopp patriote à vie mais patriote yëpp patriote à vie la ñuy wote woo ñun fekk président Ousmane Sonko mu ngi def politique moom la ñuy àndal loolu lañ gëm mhm. bu bàyyee politique ragal nañ ñu bàyyi. accord kay du avis. non mais avis la. xam nga yow sa sa tur bi sax li nga wax ni encore tamit yéen wut maanaam. déedéet ah Sonko laa àndal bu Sonko bàyyee ma bàyyi. non non ñu léegi. loolu moom non non non non non yow sa sa tur bi kon dindi ko. bu fi waxaat patriote avis. parce que avis. à vie dépendre ci Sonko quand mais effectivement. waaw léegi lu tax nga ne patriote à vie nga ne nag ñun Sonko lañ àndal mais bàyyi. yow sa mouvement bi dëgëru yow pareegoo. ah pareegoo waa baax na. da ngaa créer mouvement te pareegoo. <laughs> après ma laaj li ñuy li ñuy xeex nii sax yombul parce que yéen a ngi wax ne da ngeen di jéem a fexe ñi nga xam ne dañuy yàq euh, liggéey bi nga xamante ne nii ak projet bi taxawaay bi mu am dangay ngay gis euh, souvent tey suba rek maa ngi déglu ci benn rajo dégg ku ñu wax Cherno Diop mu ni euh, waa. Pastef dañoo pessimiste maanaam mooy li nga indi tey jii rek di jël loo xamante ne nii dafa oyof nga bëgg ko jafeel xam nga tey jii ni bu fekkee ne yow da nga bëgg tànk par tànk ngay dem ne da ngay jéem a dem pour di wax nit ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu nit ñooñu nga xam dañuy dañuy dañuy influencer nit ñi ba li ñu gëmoon ci projet bi dootuñu ko gëm ki est-ce que dina yomb puisque ñoom média la ñuy yor fi ñu mën a àgg ak ñi leen di déglu yëpp mënoo leen dox tànk par tànk pour àggee fa pour mën di leen contredire waaw no loolu dëgg la mais boobaa itam dañuy def ñun li nga xamante ni euh, suñu ay moyens ak suñu jot may nañu ko rek li nga xamante ni ah, tam kon yow kon non mais mais attends nag mais attends nag dans la vie nag mënoo def loo xam mënoo mënoo mënoo wax ni da ngay def loo mënul Omar mm. li nga man loolu ngay def ñun fi ñu mën a dem ak ñi ñu mën a waxal ñu ngi dem di wax ak ñoom li ñu mën a def ñu ngi ñu ngi koy def mais xëy na Euh, bu fekkee am na média yoo xam xëy na ñu ngi wax leneen mais itam am na ay média yoo xamante ne ñu ngi wax ñu ngi wax leneen ñun foofu amuñu fa. mais li ngeen bëggee dox tànk par tànk. depuis quand la mouvement bi judd. mouvement mu ngi judd le 4 avril bii passé. le 4 avril mais yow sa adhésion la ma may après élection yi la mouvement bi judd. effectivement kon donc bi ngeen Pastef nekkee ci kii beeg yëpp yéen demu leen ci askan bi di jéem a kii boobu mouvement bi juddoogul. dégg nga <laughs> nee naa la ñun ay militant Pastef lañ déjà. waaw mais mouvement bi kañ la. mais xam nga xam nga xam nga xeex boobu ngay wax ak leneen ak leneen. bi mu paree ñu si bari. ñu si bari dañu ni ñun dañuy dellu suñu liggéey daal di seetaat. léegi ñun suñu mouvement foofu la amee solo. cest à ñooñu di toog seetaan dañuy fexe ba bu ñu toog. di wax dañuy toog non si am c'est-à-dire liggéey bi ngay liggéey aw ma problème ak liggéey bi ngay liggéey ak li nga xamante ni moom ngeen wax di moom ngeen di def mais man xam nga sama problème fan la ne. le fait que mu bëgg a mm. euh, tudd benn mouvement parce que mën nga def lii ngay def yépp parce que lu baax la pour parti mm. mais bu mu tudd leneen kala. <laughs> ça va ñu tudd. loolu loolu rek loolu loolu euh, mooy problème la koy laaj sànq. kañ exactement nga adhéré Pastef. 2022. Euh, 2022 d'accord mouvement bi judd avril passé lan moo la poussé 2022 ak ba avril bii ngeen ko créé lan moo la poussé nga créé ko yan vide nga gis. non déjà nag euh, ni ngeen di wax rek mel ni man maa créé mouvement patriotique. ah du yow. non c'est pas man. ok c'est-à-dire ay nit ñoo ko créé. man ma ñëw bokk si. ñooñu nag ñoo la sànq. déedéet. ku créé mouvement bi. yow nga ñëw nga ñëw toog ci plateau bi ne ma déedéet moom dafa ni mooy caissier général. waaw bu génnee ku mu joxoon ne ci nga bu ko kilifa yi booyee na ko lu tax ngay gërëm daan <laughs> gars yi ku mu wooree diw la diw daan du man. booy boo ko xamul sa sa day co. waaw ah. ba tey ñi ko créé lan moo leen poussé ñu créé bi leen. moom ñi ko créé à yi nga fi wax wàcc ci askan weeg yooyu noonu. non pas du loolu. ñi ko créé wax naa la wax naa la wax naa la ko. kan la ki njëkk a nekk suñu président maa ngi koy nuyu euh, Saliou Mbaye la tudd. moom moo nekk njëkk a nekk suñu président mu ngi fi. voilà mu ngi nekk si mouvement ba léegi. en tant que moo nekkoon ancien président mais léegi am na keneen koo xam moo nekk euh, président. Mm. Euh, li tax ñu créé ko. lu tax ñu wutu ko ci diggante bi yàggul bi. waaw parce que ñun noonu la ñuy doxalee saa ñun démocratie la. mandat bi ñaata la. non non nekkul non nekkul. yéen moo nekkoon président jékki-jékki tëb. dafa ngeen déranger a ko dindi wala. saa saa attends saa waxuma dafa tëb de moo nekkoon président hmm. nekkatu ko. waaw léegi ko fa jëlee. avril passé waaw non waaw. <laughs> léegi am nañ beneen président mais ma ñëw ma ma ñëw si biti euh, li tax ñu li tax ñu créé Patriote App yi. non non kooku mënuñu ñëw si détail li. ah mais si. Euh, non non non bàyyiwul mu ne biir mouvement Patriote App yi mu ngi si bureau bi. ñii ñi nga xam ne dañoo am. kaay ma wax la lan mooy seen problème mais biti li ma laaj dafa am solo dama si bëgg a tontu. voilà mais biti li ma laaj dafa euh, dafa am solo. mooy li tax ñu créé mouvement Patriote App yi mooy li ma wax sànq. Hmm. naataange réew mi bi élection yi passé dafa am benn groupe boo xam noonu la ah, xamante ni. yéen la woon. wa ñun si lañ membre yi. ci ngeen bokkoon si lañ bokkoon. mais boobu dañu gisoon ni pëccëxoo bi dafa bari. Hmm. te pëccëxoo bi mënoo see mu mu maam li nga bëgg tëral doo ko mën a tëral. Hmm. léegi nag ñun ñu beddeeku donte ñetti nit lañu woon ñeent nit ñu beddeeku dem créer ah, benn oh, mais naataange réew mi est ngi dund ba léegi ah, non <laughs> xam man comme bokkatuma si bon naa xëy na boo leen invité ku bokk foofu est-ce que règlement intérieur passif nangu na courant de pensée comme ni ngeen ko defee courant de pensée euh, c'est-à-dire mooy euh, parti bi wax li yow nga xalaatee leneen waa non mais loolu euh, jàpp naa ni si àdduna Euh, amul kenn koo xamante ni war lañ na mën a tënk ni la maam ñun bu ñu xalaatee nii xalaatee li maam bu ñun nag ni ñuy doxale ku bokk si parti bi noonu ngay doxale mais xalaatin bi mën na am kii mën na xalaatee nii ki mën naa xalaat parce que xalaat xam nga kii la mbiru yàlla la mais bu fekkee nag lii lañ lii mooy charte entreprise bi ngay liggéeyee xam nga boo ñëwee di liggéey ci entreprise mënoo def lu dul tënku si mhm. mais nag yow si sa si sa si sa bopp li ngay xalaat sa xalaatu bopp la. mais taxul ma créer beneen entreprise. waaw mais effectivement xëy na. <laughs> mais yéen da ngeen créer beneen entreprise ci biir entreprise bi. ba pare bëgg a joxe seen xalaat ci entreprise bi. dañoo créer beneen entreprise ci biir entreprise bi pour gën a liggéeyal entreprise bi. comment. Ah, mooy li ma la wax. loolu mooy daaneel entreprise. de de des fois bu xal man. non nga xala xala man j'arrive du mal. pour vous dire ah. da ngay man xam fu ma fu ma la nangulee wax naa la ko au début jóge nañ ci élection présidentielle am na ñoo xam ne ay sympathisants lan woon bu gars yi falo ñoom duñ ay militants Pastef dañuy taxaw dellu ginnaaw. Mhm. léegi nag ñooñu ngeen jàpp ni parti bi. ñoom bokkuñu ci parti bi ñooñu ngeen bëgg a récupérer gën leen a gëmloo projet bi. parce que tamit constat bi nga def nii man mos naa ko wax man sama chronique mooy à la base Pastef nu mu doon yëngoo avant yëngootu ko def ko ñu falu. peut-être coono bi la ak doog a falu bi ak état de grâce parce boo falee nit aussi tamit da koy noppal boo xoolee liggéey bi yëpp ci réseaux sociaux yi la mais à la base alors que mba tànk ak tànk mbagg ak mbagg la. di fëgg bu yoonu yëngu yi ñoo wuute léegi. est que parce que parce que waaw bële kii la woon bii léegi c'est pour montrer. gouvernement bi ñi ngi ci liggéey ñi ngi ci leneen yoon yi mën nañoo bañ a bokk boo leen di xool ci beneen angle boobu doo fa gis parce que nekkatuñu. gouvernement bi na liggéey mais ñi war a politique à la base. aussi c'est ça ñu politique. parce que le travail à la base politique moom. waaw waaw te léegi ñu duggaat ci beneen yeneen élection. <laughs> gaa yaa ngi yëngu. da nga am loo ci yokk man li mu doon wax tout à l'heure di wax ne dañu amoon problème ci seen groupe bi groupe naataange pour génn dem dem beru te yéen yéen da ngeen di modéré pour jéema waxtaan ak nit ñi yéen seen groupe bi ngeen bi ngeen waa yéen seen groupe bi ngeen bokkoon yéen mënu leen a lijjanti ba groupe bi booloowaat doon benn mais ngeen beru bu boobaa est que ñi ngeen di dem di wax ak ñoom tamit dinañ leen dégg puisque yéen mënoo leen gérer sax fi ngeen nekk <laughs> mais euh, pourtant ñun ñi nga xamante ñoo naataange euh, réew mi pourtant ñun ñu ngi dem di leen convaincre ñuy daw di ñëw. Ah. dugg si mouvement bi ak ay xel. <laughs> yéen kon naataang woon ngeen joteel. non xëy na xam nga xam nga Sénégal nag Sandio moo bëggul moo bëggul moo. xam na li may bu baax xam nga Sénégal parfois. Mm-hmm, mm-hmm. ñu baal mais. Mm. Eh, nit ñi parfois dañuy topp Mumbaay. te te nit ñi dañuy topp Mumbaay parfois Sénégal en tant que en tant que parti reconnaître na seen mouvement bi. actuellement ñu ngi ci ay démarches. mais ah, àggaguñ ci. reconnaître guñ leen voilà actuellement ñu ngi si démarche mais àggaguñ ci. mais Omar Omar dernière question. waroon ngeen ci mënoon a am ndigalu parti bi. Ah mm. waaw mm. li ngeen def ne am na pertinence. mais am nañ ci am na am na am nañ ci ay am nañ ay kilifa. ci parti bi yoo xamante ni waxtaan ak ñoom. <laughs> ayca non ku si mel ni non ku si mel ni euh, euh, xëy na mun mu kilifa la en tout cas. parce que li tubaab naan li ngay def pour man boo ma ko yëgulul day mel na nga ko def contre man yéen mun ngeen ci jublu bu baax fekk gënul non bu ngeen demee ba ca cappaandaw ga Pastef bañ a reconnaître mouvement bi lu ngeen di def. daf koy reconnaître incha allah non non bu ko reconnaître. non daf koy reconnaître parce que Pastef si boppam noonu la. mais ñaari possibilité yëpp mën na nekk. Ah. mën nañ ko reconnaître mën nañ ko bañ a. bu boobaa itam li ñu am yëpp. ngeen tënku ci charte parti bi waaw ñu buubaat ko. non ñun ñu ngi tënku si. charte bi jébbalaat parti bi na leer. waaw ñu ñu ñu. ah na leer. <laughs> ñu takkaat suñu ay tànk tuuti daal nekk ñu ngi si parti bi déjà c'est-à-dire bëgguma ñu mu am bëgguma ñu jàpp ni ñun dañoo ne ñoo xamante ni dañu voilà bëgguma loolu ñun dañu gis ni rek suñu xel euh, moo ñu xelal ñu gis ni am na liggéey boo xamante ne xëy na ñun jàpp nañ ñi en tant que ay patriote en tant que ay sénégalais à la base war nañ ko mën a liggéey hmm. loolu kese la léegi nag ñun ñu ñu koy liggéeyal ñi nga xamante ne xëy na amuñu jot liggéey dinañ xool fu wàññi loolu la rek mu jékki gëtam Omar tëjal hmm. ah, bon li may tëjee nag euh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax hmm. wax dëgg si yàlla di sant Euh, Walfadjri ak solution TV mhm. di ñaanal Sa Ndiogou yàlla may ko li mu bëgg ci àdduna daal moo xam Walfadjri bi nga xamante ne moo ñu invité itam mhm. euh, ki nga xamante ni moo ko sosoon di suñu soppe ñun ñëpp muy Sidi Sidi Mouhamadou Amine Niass ñu ñaanal ko suñu borom euh, yokk ay leeram kër gi yàlla dëgëral ko Omar ñu lay wax yow suñu soppe bu mag a mag nga mm-hmm. Bidi yow tamit même chose maa jigéen même mm-hmm. chose mais nga baal ma Bidi mm-hmm. ma nuyu fi nga xamante ni foofu laay liggéey ñafa nañ ñëpp muy Cheikh Fall muy Diop ak ñeneen ñi nga maa ngi leen di leen gërëm di nuyu tamit sama benn nijaay boo xamante ni mu ngi ba Italie waaw muy euh, Mor lañ koy wax maa ngi nuyu di ko siyaar bu baax mhm. groupe mouvement patriote à vie waaw Walfadjri ak solution TV li ñu def xamuñu ko parce que mouvement patriote à vie ngeen invité ko première fois ñu ñëw si plateau bu toll ni ah. wax fi suñu ñun yéen a ngi doog a dem maanaam turu mouvement patriote à vie mu ñëw <laughs> njëkk a feeñee si plateau Walfadjri rek ah. ñun loolu rek sac la si ñun ñu ngi ñaan nag Walfadjri ni mu màggee solution ni mu màggee mhm. mouvement patriote à vie màggee noonu di sant président bi Saliou euh, ki nga xamante ni mooy euh, commandant patriote à vie ñëpp bu fekkee juum naa si wax ji ñu jéggal ma xam ni euh, bëggoon lu rafet moo taxoon rek. lépp loo xamante ni dëng na si suñu ñàkk xam-xam la lépp loo xamante ni tamit rafet na si suñu borom bi la tabaaraka wa taala di wax ni in uridu ila al islaha ma stataatum wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wasalaamu aleykum yow daa demoo modap mënoon nga dem modap ah? ah ah aja <laughs> ma sàmm bi rafet na waaw kon di la ñaanal rek li ngeen ci yéene bu dee lu gën la yàlla nag suñu borom mottali di nuyu baax seenu mi nga àndal moom tamit Sadio mhm. Koma ah. mhm. <laughs> kon ajaratu kaddu gaa ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Massamba Mbaye euh, je rappelle que ni mouvement patriote à vie nga bokk yow yaay caissier général bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax